Serigne Touba ko nangou wax na ne jikko yi gep ku ko jikko ku nek, xamal ne mourid sadikh nga waye taxut seytaane baye ko ca nak dafa wax ne man toftal na ñaar fukki jikko ak juroom ñet yo xamne dana ci nak doomi adama yi ba mom leen ca jikko yi nga xamne ne jikkoy murid la modi di talib bede day gem ak talib day nangou ak talib day am yar ak talib day am teggiin ak talib day nangou dogal ak talib day nangou ndigal ak talib day woyof ab taalibe day dëddu àddina ab taalibe day tabe ab taalibe day sakku lu baax ab taalibe day am fulla ab taalibe day doylu ab taalibe day gëm bés penc ab taalibe day déggu ab taalibe day set ab taalibe day am fit ab taalibe day maandu ab taalibe day ragal yàlla ab taalibe day rafet jikko ab taalibe day sax ci dëgg ab taalibe day yeewu ab taalibe day farlu ab taalibe day wax lu mu nar ab taalibe day jëf ngir yàlla ab taalibe day rafet xol ab talibé day xar lol ab talibé day fekké ndigal ab talibé day nango liggéey ñaar fukki jikko ak juroom ñett ngoog kum dajé ci yow murit sadex nga ñaar fukki jikko nak ak juroom ñett ngi yo xamné ku ko yok ci yor benn jikko Cheikh rafa nee da ngay tuddé sa bop ab murit waye sare nga ak mourid ba jikko yoy modi sikki sakka ak reey ñak yar ñak di ñaan dégg di digal diis bew nay soxor moy seeneen rambaaj naafeq tilim ragal tooñ jëw xeebe wax lu nekkut dof tayel wor njistal bon xol mot doo fekke ndigal siis jikko yaa ngoog kenn ku nekk day cité boppam nag parce que ñu ko wax ba noppi am nga ni gu weet man ma fa dal ba ne waaye jikko yu mujj yi soo ci ira benn nooy def waaw kaamee addiyo addiyo Cheikh Ibra